parti démocratique sénégalais sama parti maa ngi profito ci bésu tey bi di ñaanal. waaw ci li njëkk mooy dañoo nekk ci ab république ñu organiser ko tënk ko ci ay tex tudde ko conseil constitutionnel la constition du Sénégal ëmb lépp luy loi. lépp luy décret lépp luy justice ñu dénk ko ay nit bi ñu demee ba yàlla def nguur gu bees ñëw fi mu yemmoo ak assemblée bi fi nekkoon nga xam ne ay sénégalais ko tànnoon tamit jeexal ñaari atam waaye mu nga doon juddi ci biir ay jafe-jafe président daal di koy tas teg ko nag ci loi Sénégal ñu jaajëfaloon ko ci nag bu baax mu jàpp dat pour ñu war a dem jongante waat wutaat assemblée bu bees ñu ngi ñaan yàlla assemblée boobu di bees di war a ñëw yàlla na jig député yi ko composé waaye yàlla bu ñu mel ni yenn assemblée yi ko jiitu woon xeex xuloo dóorante wane image bu ñaaw daal bu rafetul ci Sénégal comme bii assemblée yal na ko yàlla may ndam te mu jig Sénégal jigit ña nga xam ni ñoo di ay député ñu dem nag ci ay campagne 21 jours ci li ñu daan gis li ci ëpp noonu la daan deme candidature yi ñëw nañu ñu di limu ñeent fukk ak benn looloy démocratie tamit képp kuy sénégalais remplir conditions yi cër yi Sénégal di joxe bu la neexee nga yëkkati sa loxo ni bëgg naa ko te tamit war nañ ko organiser waat ba mu vraiment conforme ak bëggu-bëggu sénégalais yi parce que lépp nag sénégalais yi ñoo tax waaye ñeent fukki list ak ñi benn yoo xam ni ñi ëpp amuñu ku leen woteel maanaam zéro la ñu am ñooñu mooy wax dëgg yàlla ñooy tardeel nag nit ñi donte am nañu wareef ak yelleef pour samp seen ndënd waaye itam nañu xam seen bopp nit day xam boppam xam-xam bokk na ci nga xam sa bopp kon mënoo xëy rek ne cëpp ci géew politique bi yëkkati sa loxo daal ne kaay leen ma falal ma te xamuñu la loolu da ngay tardel nit ñi ba pare dangay xëy na sax yàqal sa bopp kon nañu seetaat yëf yi mais nag gouvernement moo am responsabilité aussi wax dëgg yàlla donte démocratie la ñu wax mais une démocratie organisée conforme à l' aspiration des pop population loolu nag vraiment maa ngi ci ñaan donc def nañu campagne amoon na ay problème ay xeex ak xuloo waaye ca mujjantal nga daal lépp am na ci jàmm ba sénégalais yi xëy dem wata yi ci jàmm dellusiwaat ci seen yi kër ci jàmm xëyaat liggéey ci jàmm loolu mooy démocratie te nag loolu ñu ngi koy saluer ñu ngi koy encourager mais di ci féliciter surtout le peuple sénégalais mature organisé et efficace ñu ngi leen di sant bu baax ñoom. kon kon su ma déggee da mel ni kon àndoo ci kàndale si nga xamante ñoo posé woon candidat ci élection yi passé. non wax dëgg yàlla démocratie la ñu wax nag. waaye wax ñu anarchie. bàyyi ba ab élection jóg. mosoo wane dara fasaloo benn yoon nit ku bëggoon Sénégal nga te fekk na sax yaroon nga am koom mu la yàlla dénk waaye mosoo cee jàppale kenn mosoo cee dimbali réew mi nga xëy ba ci yàgg nga samp sam dënd ni waa réew mi da damaa bëgg ngeen jiital ma jox ma seen bopp loolu itam vraiment lañ ko seetaat daal donc. c'est te boo demee élection locale noonu lay demewaat c'est que gox yee bari rek waaye bu doon benn élection boo xam ne benn liste lay doon non di nga yéemu commune bu ci nekk da ngay gis ay vingtaine de liste ca ñoo ko ña ko déposé xëy na sax mosuñoo fanaan ci biir commune boobu dikk samp seen dënd daal nii vraiment joxleen ma seen baat loolu aussi nañ ko xoolaat moom laa wax waa Sénégal ci tur wi ñu wax damay sànni ji sama carte wala damay sànni li diw may ñaan bu ñuy sànneti yàlla nañu jam dëgg na ñu jam njub yàlla nañu jam yal na ñu jam mbaax yàlla nañu jam ku fonk di saxal di sàmm diine yàlla bu ñu ko moy te nag li koy indi mooy ki nga koy sànneel nga xam ko farfarloo baaxul nañu faral Sénégal parce que Sénégal avant et après tout donc nañu xoolaat mbir yi. su fekkee de campagne euh, élection jot Pastef jàngatee élection yi xam ne am nañu mais jàngat bi mooy d'abord félicité waa Pastef ca dëgg-dëgg ci seen taxawaay ci seen mobilisation ci seen détermination parce que organisation ak pas-pas moo leen may li mu leen may mais fit ak engagement moo leen ko may politique tàmbaliwu fi ren. lu yàgg senegal xam nañu élection xam nañu vote xam nañu tànn kon Pastef ñëw na bëgg na wane na boppam votel nañ ko félicitations et encouragement mais li ma leen ciy tegal mooy ñu xam li ñu leen jox ay nawle xëy na sax ñoo xam ni xamuñu la mosuñoo joxante yow loxo yaakaar rek la ñu am ñëw jox la ni la jiite ñu ki la ñuy jiite jiite ma jox na la boppam ki la jox kàddoom jox na la boppam konte nag nañu bàyyi xel sénégalais yi jàppale leen ci seen yitte liggéey jëmale réew mi kanam politique politicienne bi ñu teg ko ci suuf am na lu ñuy théoriser ma koy dégg gëm naa ko lool waaye nañ ko jëfe looloy dëgg félicitations à au parti Pastef à ses dirigeants et militants mais nag ñu jàpp ni ñu leen woteel ëpp na fuuf seeni militants c'est des Sénégalais qui se sont levés de bonne heure qui ont porté leur espoir ci ñoom dem woteel leen konte nag ñu ngi leen di féliciter di leen encourager mais fas yéene gunge leen aussi ci liggéey bi. coalition bi nga bokkoon maa ko takku euh, Abdoulaye Wade Macky Sall jiite woon ko ngeen am si député nan nga jàngatee euh, moom bi xam-xam ngeen réellement c'est c'est c'est normal ça. Babacar ñëwoon nga fii ci man. ma ne la ci suñu biir parti dafa am ay problème ak i jafe-jafe problème yaa jafe-jafe ya mooy li ko indi ñàkk tegu ci dëgg ñàkk tegu ci njibu ñàkk tegu ci texte yi nga xam ne aw Ablaye Wade ak ñoñom tënkoon nañu ko ni ni nii la ñuy doxale parti bi ay nit bëgg a ñëw jàllgati ko tege ko nële doxee nu leen neex ak ki ma neex ñu jógoon di ko xeex maa ñeneen lu mat wala lu ëpp ñaari at principe moo taxoon ñu doon xeex waaye ba tey jii PDS lañu kenn gënuñu koo bëgg kenn gënuñu cee bokk waaye itam ci kaw dëgg ak principe. ndembali boobu lu PDS googu ñuy dem ba jëmmi jamono ñu songoonte xeex ak waa APR ñu leen di tuumaal di leen xas di leen tëj di exiler ñenn ñi. teg ñenn ñi fitna ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci base yi dem ba xuloo sax suñuy dëkkandoor ndax far ak position ñu xëy benn bés seen lem ñu ànd ak ña ñu doon defanteel loolu ñu retiré wu ne d'accorduñu ci. d'accorduñu ci doxalin wi ça ne veut pas dire que d'accorduñu bàyyi nañu PDS. je suis PDS plus que jamais déterminé mais li mu jël ci dernier moment yi bokkuma ci ànduma ci je ne suis pas de takk wàllu.

ak Macky Sall Idrissa Seck Pape moo Modou Diagne Fada Omar Sarr ak ñeneen ñi kàngam yi nga xam ni wax dëgg yàlla yoroon nañu nguur ñu mën a lëkkaloo ànd amuñu lu dul ay seize députés wuye la représentativité war nañu xoolaat seen bopp c'est une alerte xam nañ ni la def nit ñi ànduñu ci àndu ndax sa falaa falaa baaxul nit da ngay ànd ci dëgg dox ci dëgg te yaakaar yàlla te wóolu ko mais ànd bii dawul woon dëgg tegaloo ci yoon moo tax nit ña wane la ñu wane waaye nag terewul Ablaye Wade ngi fi moom la ñu bëgg moom la ñu gëm oh, euh, Karim Wade day suñu candidat jusqu'à preuve du contraire mais nag ñoo moom suñu boppit suñu gisee lu ñu gëmul bëgguñu ko te teguwul ci dëgg ñu maandu ca. poste député le souhaite même pas. Mm-hmm. parce que mars yàggul. 21 mm-hmm. mars 2021 yàggul les événements de 2023 ba ñu taal université yàggul mm-hmm. li fi xew ci njombee yu mel noonu yàggul kooku wax dëgg yàlla mëneesu la fàtte li fi xew bëgg koo suul gas suul mënul ne am na ay ñu ñàkk seen bakkan alal ju bari yàqu ci position boo xam ne mënoon naa ñàkk te su amul woon li xew du xew kon te nag kooku de su ma doon moom mu jéem sax fas ne fàtte fàttelu pour toog ba ñu ñëwati ci yu mel nii. non loolu moom man su ma sañoon kenn du tëj kenn su ma sañoon kenn du bundu kenn waaye su ma sañoon itam lépp tegu ci dëgg. ku jalgati nañ la wan ni jalgati nga su fekkee la nga yor mënees na koo jël dugal ci keesu état ñu def ko te bàyyi ñëpp ñu libre parce que jàmm daal moo gën. mais ah ci Sénégal de moom gisuma ko fi ma dëkk xam ko Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye Wade jaar na fi Macky Sall fi mujj jaar te gisuma ñu topp ci kenn kon nag suñ demee bay koy laam-laamee ko wax. c'est parce que jaar-jaaram am na ñaaw am na ñaaw ñaaw am na ñaaw téef am na mbon mbon kon ñi ci kanam nañu xalaat ci loolu bàyyi xel ci loolu président bu fi jëwati da ngaa war a libre am jàmm ñëwaat bokkaat nekkaat sénégalais comme Ablaye Wade li mu def Ablaye Wade ba tey jii fu mu génne nit ñu song ko ndax mbëggeel mais c'est un exemple vivant qui est kon nañu bàyyi xel loolu fal ak falu yàllaa ko yor te day jeex. élection yi jeex na Pastef gañe na bees bi. mais assemblée bees bi député yi xam ne du ñu paxti parti député sénégalais lañu ñu taxawal fi nekkal fi senegal liggéeyal senegal ñi ñu fi remplacer 2022 lañ leen fal seen mandat jeexul ku leen noonu di ngeen du ngeen jeexal seen mandat du ñu ko gëm donc ñoom it liy xew ci kanam yàlla xam. ñu ngi leen di souhaiter ñu def cinq ans yu am jàmm am dal ñu liggéeyal Sénégal waaye itam nañu bàyyi xel yàlla te xam ni man na lu ne bu ñu am mbetteel saa suñu xëyee nañu nekk au service du Sénégal et des Sénégalais je crois que loolu daal mooy li war mooy li gën waaye far ak far farloo far baax na de waaye far farloo baaxul te far sax maa ngi bëgg su dee am nañu faral Sénégal képp kot dong système si Ousmane Sonko président assemblée lu xew non assemblée c'est une institution. si moom mu su ko nekkee dama jàpp ni il sera le président de l'assemblée du Sénégal. au service du Sénégal. pour le développement du Sénégal. su fekkente ni il conserve son poste de premier ministre mais que zalika il sera au service du Sénégal donc. ñun daal jàmm lañ ko yéene ak ko na luy xew ci ay diggante nit ñi la bëgguñu jàmm bëgguñu ñu juboo te jàmm ak juboo président de la république ak son premier ministre mooy yóbbu Sénégal ci kanam kon ñun suñ bëggee dem li ñuy yóbbu ci kanam mais nañ ci jàpp yéene ko jàmm mën ngaa dugg ci oto bi te yéene woo bi jàmm am net loolu baaxul nañu fexe Diomaye ak Ousmane juboo Diomaye ak Ousmane déggoo Diomaye ak Ousmane ànd liggéey développé Sénégal. mais président est-ce dina am ci lu ne. waaye ki juum na am élégance ak oyof ak grandeur boo xam ni su juumee xam ne juum na mu plus qu'il avance plus qu'il fera. mieux donc yooyu moom il faut mettre dans le cadre de l'être humain di juum mais bu ñu ko réyal nag yóbbu ko fu mu àggul je pense que xalel la day doog a yar pouvoir kon mën naa am mu def ay njuumte waaye na jubantiku dans le soir c'est la député yi defal c'est pas la première fois député yi à chaque fois législature bu bees bu amee daañu leen former parce que nit ki nag li nga yor nga xam ko moo gën nga yor ko te xamoo ko kon di leen former di leen recycler di leen capacité am na solo trop parce que nag la lecture d'un budget ne pas donnée à tout le monde il faut une formation doxalinu yoon il faut une formation parce que député yi du ñoom ñëpp jàng yoon am na ci ñoo xam ne sax xëy na jànguñu te Sénégal la ñuy liggéeyal kon war nañ leen a former ci maximum bi nga xam ne au moins. war nañ koo xam pour doxal. situation politique bi situation politique bi moom ñu bañ ko ñu nangu ko recomposition am na te day am ku yabu nag gaaw bokk ca waaye li fi doon xew c'est révolu la constance pour un parti politique c'est fini. ñu bàyyi la ngay doxale nu la neex sef c'est fini kon yàlla mooy doxal àdduna te xale mooy mujje ëllëg xale yi démb ya màgg nañu nañu leen bàyyi xel te jox leen seen cër gunge leen ñoom it ñu bàyyi xel mag ñi di leen déglu nangu leen aussi seenub cër bu ko defee ku nekk bu nangolee sa moroomub cëram dina jëm ci kanam.